d'audience dinañ ko daal a bokk ak yéen ñi nga xam ni ne yéen a bàyyi xel sur 313 euh, digital ba tax na rek koy leen di continuer di liker ak di partager li nga xam ne rek moom mooy bile euh, live ndax suñu paree rek dañuy daal euh, jibbal ña nga xam ne ñoo nekk foofu noonu ca tribunal ngir ba nga xam ni daal di lañ ko fay nemmeeku ak information yi ne dina fa daal classe de Dakar ba tax na ñu ngi xamal que ne kat comme tantôt ni mu ko waxee ne l'audience boobu li les avocats d'Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les avocats de l'État ñoom nag ña nga foofu noonu euh, ca boobu ca boobi li euh, Sall waaye nag ñu ñu xamal que ne kat ba 8h57 euh, jotee moom maître Bamba Cissé dafa daal di justifier euh, retard ba nga xam ne rek ñoom daal nañ koy am ndax ba ñuy woo ñi nga xam ñoom ne les avocats d'Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko ca baar ba mun naa ni les avocats d'Ousmane Sonko ñoom nekkuñu fa woon nekkuñu woon ca boobi li Sall ba tax na rek loolu le moo waral nag ñoom ñu daal di justifier li nga xam ni moom mooy seen retard te maître Bamba daal di koy def ndax ndax ci. ndax gis nañ ne euh, dernière minute rek dañoo daal di euh, changer li nga xam ne moom mooy euh, salle audience bi moo waral nag ñoom ñoo daal di am li nga xam ne moom mooy tuuti retard avant ñuy dem ca salle 7 ba tax na rek moom maître Bamba Cissé sax moo daal di comme ni ma ko waxee tantôt moo daal di jug daal di waaye tamit daal di sàkku rek ñu daal di koy jéggal ca absence bi nga xam ne rek wala ci retard bi nga xam ne du moins ñoom daal di nañ koy am ba tax na. gis nañ ne que ne kat dañoo daal di euh, demander aussi euh, ci avocat yi ku nekk rek am nga lu toll ci euh, vingt minutes yoo xam ne di nga plaider sa client que ça soit les avocats d'Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñooy les avocats de l'État mu nekk nag benn temps boo xam ne dañ leen ko daal di limité waaye tamit gis nañ ne benn xuloo tamit amoon na fa xuloo amoon na ci diggante les avocats d'Ousmane Sonko ak ñi nga xam ne ñooy les avocats de l'État du Sénégal ba sax ñi nga xamal que ne les avocats avocat d'Ousmane Sonko dañoo daal di sàkku à ce que ñu may leen lu toll ci cinq heures de temps ngir ñu mën a plaider ki nga xam mooy seen client di Ousmane sunk ndax ñoom nombre ba nga xam ni doon nañ ko rek dafa daal di xaw a euh, takku ndax les avocats d'Ousmane Sonko cinq lañ euh, ca la nga xam ne moom mooy boobile euh, salle trent cinq robe noire ñoom ñoo ñëw ngir plaidel ngir layal ki nga xam ni moom mooy prix moom mooy Ousmane Sonko nekk maire bu Ziguinchor ba tax na ci côté les avocats de l'État ñi ngi nemmeeku 5 avocats ñoom daal di ñëw ngir plaidel ki nga xam ne moom mooy l'État du Sénégal maanaam daal. ci côté Ousmane Sonko 35 euh, avocats la ci côté état du Sénégal euh, mu daal di toll ci lu toll ci mu daal ñu daal di am lu toll ci 5 euh, avocats yoo xam ni ñoom ñooy plaider l' état du Sénégal ba tax na ginnaaw 5 heures de temps yi nga xam ni les avocats d'Ousmane Sonko demandé woon ko bi nag la mu daal di jël rek mooy 4 heures de temps la daal di leen koy accordel kon maanaam 5 heures de temps yi ñu demandé woon mën naa ne juge bi daf ko daal di tegee na le daal di jël li nga xam ni moom mooy 4 heures de temps. millions euh, pour chaque euh, parti maanaam quatre euh, li nga xam mooy parti wu Ousmane Sonko ay avocats ak l'État du Sénégal aussi mu nekk li daal mais gis nañ ne ki nga xam ne moom mooy. mais gis nañ ne am na ci kenn ci avocat Ousmane Sonko maître Fall moom nag bëggut a dégg li ni mel a dégg la nga xam ne rek juge bi dal dina koy wax ba tax na loolu sax mën naa ne moom merloo l'agent judiciaire de l'État moom dafa daal di. moom dafa daal di euh, moom la agent judiciaire de l' état dafa daal di demander ñi nga xam ne ñooy avocat Ousmane Sonko ngir ñu de wax ak euh, li nga xam ne moom mooy euh, cour bi parce que moom mooy décider ban temps lay daal di accorder ban temps lay daal di maye amaana li ni moo daal di indi li nga xam ne moom mooy boobi de dispute indi li nga xam ne moom mooy boobi de xulo par la suite nag ci lañ gis juge bi daal di jël. li nga xam ne moom mooy euh, kaddu que ne kat li ni mel kat du leen ko daal di euh, mën a euh, may loolu nag mu nekk parce que moom maître Fall dañoo xam ne que ne kat juge bi dafa daal di teel a jël li nga xam ne moom mooy parti maanaam dafa teel a far ci ñi nga xam ne ñoom ñooy les avocats de l' état ñi nga xam ne ñoom ànd ak état du Sénégal juge bi nag daal dina koy xamal ne ko kat propos yooyu nga yëkkati daal di koy delloowaat ko fa nga xam ne fa daal di fa nga ko daal di jëlee ndax xamoo leen ma loolu nag mu nekk ab kàddu goo xam ne mi ma juge bi moo ko daal di xamal les avocats d'Ousmane Sonko yi nga xam ne ñoom ñoo euh, kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo da moom moo daal di xamle euh, daal di jël li nga xam ne euh, moom mooy partie ba benn instant nag la ñu gis que ne kat tribunal bi am na li nga xam ne moom mooy ab dal dal bi nag daal di nañ ñëwaat ba tax na rek li ni daal jamono ji moo amagum foofu noonu ca tribunal de Dakar ginnaaw aussi ña nga xam ne ñoom ñooy juge yi waanaam ñi nga xam ñoom ñoo ëmb tribunal que ça soit juge yeeg greffier procureur ñoom ñëpp yëpp rek jamono ji eh, ña nga ca salle euh, d'audience ba ngir daal di tàmbali la nga xam ne rek moom mooy eh, information daal di tàmbali li nga xam ne eh, moom mooy boobi les audience ngir ñu mën a xam exactement Ousmane Sonko euh, ba xam dañ koy delluwaat ci liste bi am déet mais l' essentiel mooy que euh, cinq avocats yi ñoom ñoo nar a del tey Ousmane Sonko cinq avocats yi ñoom ñoo nar a del tey euh, les avocats de l' li ni mel nag moo amagum jamono ji foofu noonu ca tribunal hors classe de dañ leen daal di bàyyil ak suñu équipe bi nga xam ne moo nekk foofu noonu ca tribunal ba ngir ñu daal di leen dégtal la nga xam ne rek jamono ji moom moo fa daal di am waaye lañ ca mën a noter daal mooy que ab dispositif sécuritaire bu mat sëkk la ñu daal di jël. foofu noonu ca tribinal hors classe de Dakar ca palais de justice de Dakar ab ab euh, sécurité ab euh, dispositif sécuritaire bu am solo moo fa daal di nekk gis nañ takk der yi euh, nañu daal di wëree li nga xam ne moom mooy tribinal ba rek pour ba lenn loo xam ne rek ab dëng-dëng la daal di am foofu lee moo tax nag ñu daal di leen di bàyyeel ak suñu équipe ba nga xam ne moo nekk foofu Duudu ak Silla ñu daal leen di bàyyeel ñun ñu daal ngir ñu daal di leen dégtal la nga xam ne rek moom moo amagum foofu noonu ca tribinal de Dakar.